bay te mu am engrais de fond ci diiru ñaar ba ñetti fan laataa ma ji ma pulvériser benn quantité bu 7 ba 8 pulvérisateur wala siwa ndox yu 15 ba 18 litres hectare bu nekk. bu dee toolu ceeb mbokk dugub gerte boo xamante ne mos nañ cee bay damay natt ñaari bouchon green ok ci 15 ba 18 litres ndox ma pulvériser ci kaw NPK yi ci suuf si bu dee appliqué nañ ko ak itam ci kaw urée bi bu dee appliqué nañ ko jàppaleen ne NPK mooy azote phosphore potassium damay pulvériser quantité wu 7 ba 8 pulvérisateur wala siwo ndox ci 15 ba 18 litres hectare bu nekk jàppaleen ne boo leen di pulvériser Green OK ci suuf si da nga bokkul ak kenn ci téléphone téléphone rek bàyyi ko ci loxoom Touba Kër Niang communication chez Mamor vente en gros ak demi gros lépp loo xam ne dafa jëm ci téléphone wala batterie wala flashka écran connecteur chargeur back cover habillage accessoire pour bépp réparation wu téléphone loo soxla ñu réparer la sa téléphone matériel ba moom am na ko maam dafay dem ba Chine dem Dubaï indi maire bu bawal dugg na samp nënd badu ci ñaari mbër moom carrière bu bawal ma nga noonu waaye Petit Lo ak Jackson at bi bee wax ak ñoom Jackson senior di leen wax li lamb nangu ak li lamb bañ nee naa la Petit mu taxaw at bi di wax ak moom bàyyam Modou loo fii la war a taxaw la cinq at bi di ak moom Jackson Petit Lo at bi si ne tey dimanche 29 octobre 2023 journée foot de production Petit Lo à gauche Jackson Junior à droite arbitre bi la ñu déplacé wu déplacement latéral dem ca saako ya ña ngay lewaatoo ñoom ñaar ñëpp tànku ndeyjoor lañ jiital Petit Lo sàcc na pas dugal coup Jackson arrière ña nga ca ñoom ñaar ndeysaan Petit Lo mépp na waay demul mépp na waay demul Jackson a ngi sàcc pas mais Jackson defal attention yor na gauche droite boo xamante ni jël na ko daje nañu mbot wër nomba plaqué duggaat nañu ci géew ba Jackson génn na benn tànk ma nga ci biti Petit Lo na ko avantage Petit Lo day jël avertissement ey bi combat la ilaha illallah xale bi bàyyiwul dara ci bàyyi Modou Lo benn avertissement Jackson deux avertissement Jackson arbitre mu dóore pilis génn bi égal deux avertissement arbitre sifflé waat na Petit Lo à gauche Jackson Junior à droite Petit Lo fii eh! na droite waaye dalul yor na gauche droite boo xamante ni mbër mu ko yen moom Petit Lo ndeysaan Petit Lo jaayewaat daan waaw waaw daan na ko jël bu rëy nee na lépp yàlla la waaw na lépp yàlla la Kapo mu daane fi la bàyyi wala bëre dimanche ndeysaan Petit Lo daan na Jackson Senior jël bu waaye carrière bu bawal dugg na samp nënd badu ci ñaari mbër moom carrière bu bawal ma nga noonu waaye Petit Lo ak Jackson at bi bee ngi wax ak ñoom Jackson Senior di leen wax li lamb nangu ak li lamb bañ nee la Petit Lo mu taxaw arbitre bi wax ak moom bàyyam Modou Lo fii la war a taxaw la cinq arbitre bi wax ak moom Jackson Petit Lo arbitre bi ne la seen diggante tey dimanche 29 octobre 2023 journée foot de production Petit Lo à gauche Jackson Senior à droite arbitre bi la ñu déplacé wu déplacement dem ca saaku ya ña ngay ñoom ñaar ñëpp tànku ndeyjoor lañ jiital Petit Lo sàcc na pas dugal coup Jackson arrière ña nga ca ñoom ñaar ndeysaan Petit Lo mépp na waay demul mépp na waay demul Jackson angi ngi sàcc pas mais Petit Lo Jackson defal attention yor na gauche droite boo xamante ni jël na ko daje nanu mbot wër nomba plaqué dugaat nanu ci géew ba Jackson génn na benn tànk ma nga ci biti Petit génnee na ko avantage Petit Lo day jël avertissement ey bi combat la ilaha illallah xale bi bàyyiwul dara ci bàyyi Modou Lo benn avertissement Jackson deux avertissement Jackson arbitre daa sifflé mu dóore pilis génn bi égal deux avertissement arbitre sifflé waat na Petit Lo à gauche Jackson Junior à droite Petit dugal na droite waaye dalul yor na gauche droite boo xamante ni mbër mu ngi koy yen moom Petit Lo ndeysaan Petit nan daje tax plaqué daan waaw waaw Petit Lo daan na ko jël bu rëy waay Petit Lo nee na lépp yàlla la waaw waaw nee na lépp Petit Lo daan na Jackson Senior jël bu rëy waaye carrière bu bawal dugg na samp nënd badu ci ñaari mbër moom carrière bu bawal ma nga noonu waaye Petit Lo ak Jackson at bi bee ngi wax ak ñoom Jackson Senior di leen wax li làmb nangu ak li làmb bañ nee naa la Lo fii mu taxaw at bi di wax ak moom bàyyam Modou Lo fii la war a taxaw la cinq at bi di moom Jackson Petit Lo arbitre bi na seen diggante tey dimanche 29 octobre 2023 journée foot de production Petit Lo à gauche Jackson Junior à droite arbitre bi la ñu déplacé wu déplacement latéral dem ca saaku ya ña ngay lewaatoo ñoom ñaar ñëpp tànku ndeyjoor lañ jiital Petit Lo sàcc na pas dugal coup Jackson arrière ña nga ca ñoom ñaar ndeysaan Petit Lo na waay demul mépp na waay demul Jackson a ngi sàcc paa mais Petit Lo Jackson defal attention yor na gauche droite boo xamante ni jël na ko daje nanu mbot wër nomba plaqué dugaat nanu ci géew ba Jackson génn na benn tànk ma nga ci biti Petit Lo na ko avantage Petit Lo day jël avertissement ey bi combat la ilaha illallah xale bi bàyyiwul dara ci bàyye Modou Lo benn avertissement Jackson deux avertissement Jackson arbitre daa sifflé mu dóore pilis génn bi égal deux avertissement arbitre sifflé waat na Petit Lo à gauche Jackson Junior à droite Petit eh! na droite waaye dalul yor na gauche droite boo xamante ni mbër mum ka yen moom Petit Petit Lo jayewaat nan daje tax plaqué daan waaw waaw Petit Lo daan na ko jël bu rëy waay Petit Lo nee na lépp yàlla la waaw waaw nee na lépp yàlla la Kapo fii wala bëre dimanche ndeysaan Petit Lo daan na Jackson Senior jël bu